ma jottali leen communiqué bi bàyyee ministère de la santé et l'action sociale tey bésu talaata fukki fan ak juróom-benn ci weeru février mi ñu nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen birologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def ñaari ñaari téeméer ak benn ñoo ci positif ña ñaari téeméer ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn ka importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne ma baamtuwaat ko tey ci bésu talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru février mi nekk ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom fukk ak juróomi test yi def ñaar téeméer ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn kaa importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ni ñooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ci leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëdde commune de Thiès am na ci fukk ak benn juróom-ñaar ci Rufisque juróom-benn ci Fatick ak Saint-Louis juróom ci Dakar Plateau Kébémer Louga Mariste ak Mbour ñeent ci Mas Kër Massar ak Tamba ñett ci Diamniadio Mamel Mermoz ak sacré ñaar ci Almadi Kolda Kounoune Liberté 4 Médina Ouest Foire Yoff Touba ak Ziguinchor benn ci Mbirkilaan Bopp cité Biagi cité Magistrat cité tak Takko Jaxaay Jëppal Fass Fatick Goudomp Grand Dakar Hamo HLM Liberté 1 Makka Koulibantang Matam ñaari tali Parcelles Assainies Popenguine Sicap Baobab Sicap Foire Sokone Tivaouane ak Yombal ñaari téeméer ak fanweeri malade si ñi nga xam ni ñi entrée woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi ñu ngi am tan te dinañ génn tey bis yàlla àndee juróom-benn fukk ñett malade ñoo nekk réanimation juróom-benn malade ñoo nekk euh, ñoo jot a adduna àdduna bésu démb altine fukki fan ak juróom ci weeru février 2021 ñeneen ñi des ci biir kër yi ak hôpital yi ñu ngi am tan ci bésu tey daleko ci kaa bu njëkk ba senegal wàññi na fanweeri junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci kaa nga xam ne ñoo amoon doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki ak juróom ak juróom ak juróom wér nañ si juróom-ñaar téeméer ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk si lalu hôpital yi ak malade yi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñu génn àdduna yàlla xare leen a àjjana di ñaanal ñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen i njaboot aarale askan wi